alhamdulillahi wa salla abada ala allazi bihi lana al-huda abada sayidina muhammadin wal ali wa sahbihi dawina walil wali laqil lisaani waxlulan minhu al-uqad wajal hudakiran wa shakiran abada wajal kalaami rashidan wa murshida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida anta allazi allamta luqmaana al-hikam falyahab bil mustafa khayra sham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 ñu yittewoo dunduk àllaaxira tey fàttaliku dee fu ñu toll te xam ne àdduna fees di jaar di jàll la te mbokk yi fàttaliku dee lu am solo la ndax sëriñ Tuubaa day wax ci xikma ne fàttaliku dee moo gën fanaanee naafila maanaam taxaw guddi yëpp guddi gu ne nga fanaanee naafila ba bët set léeg nga jël saa soo xam ne ni da ngay fàttaliku dee mu wóoral ne mi ngi ci sa kanam te mu amut fenn foo daw ba doo dal ci kawam wala ba du dal ci sa kaw amut nee na loolu moo gën fanaane naafila guddi yi kadaka dikrul mawti afdalu lana min alqiyaami fi layaali zamana waxaat na ci xikma ba tey ne adduniyaa mamarrun wal axiratu hiya al maqar adduna def fees di jaar di jàll la saxuwaay bu mooy ëllëg yowmal qiyaam ëllëg al te loolu alquran wax na ci lu bari lu dul jeex wal axiratu xayru wa abuqaa te it moom sëriñ bi nee na deekat ah bu ngeen ko bàyyiwul xelit mooy li leen gën a jege ndax moom mi ngi ci seen kanam na aynama takunu yudrikum mawt wala kuntum fi buruji ba dee moom boo koy daw sax day mel ni yaa ngi daw di tasee ji ak moom moo tax sëriñ bi ne mooy li leen gën a jege mooy li gën a jommale moom dee te gën a métti wex mooy li gën a wex mooy li nga xam ne nii wextaan wu mel noonu kenn du ko mos ci ak dundam dee metti la mat nay bàyyi xel bu baax a baax te it nee na e, buy ñëw da leen di bett te kenn mënu koo daw almawtu aqrabu wa adha wa amar wa baxtatan yaati wa ma anhu moo tax am na ko mas a ñëw ci moom ne ko man di mbàkke dañoo nangu sama kër sëriñtu Tuubaa ne ko kër mu ne ko waa mu ne ko man di amaguma kër ne ko ñëwal ma wax la ne ko nit nit ñetti dal la am bu jógee ci ñetti dal yooyu nag lay doog a dem këram dal bu fa nekk nag bu fa nekkee ba xajutu fa day jàll ci dal ba ca des ne ko dal bu njëkk mooy biirum ndayam nit bu nekkee ci biirum ndayam ba xajutu fa day dem ci àdduna bu nekkee ci àdduna ba xajatu fi mu dem ci bàmmeelam bu demee ci bàmmeelam ba xajutu fa lay doog a dem këram yàlla na ga ko gënal nag muy àjjana ndax mook safara rekk fa nekk kon mbokk yi lu mat a bàyyi xel la Euh, a Cheikh Ibrahima Fall daana wax ne na ngeen tëppax bala ngeen a tabax na ngeen fexe ba tëppax mi muy bàmmeel am na boroom xam-xam bu ragal yàlla bu bindoon Salih ibn Abdul Aziz Salih ibn Abdul Xudus wax yu am solo laaj bu am solo mu tontu ko tontu lu am solo daf koo wax ne ko almawtu baabun wa kullu nnaasi daaxiluhu fa layta shaariya baadal baabi maddaaru dana ko dee daal gis naa ne bunt la boo xam ne nii ñëpp a fay jaari ni ñëpp ay dugg ci bunt bi kenn du ko échappé ak neexoon nag ma xam bu ma duggee ci bunt ba fan mooy sama kër ndeyjoor laay jëmam càmmoñ ak fuy sama kër daal daal koy laaj laaj boobu yi Salim na Abdul Xudus tontu ko ne ko addaaru jannaatu adnin in amilta bi ma yurdil ilaah wa in xaalafta fannaaru huma mahallaani ma linnaasi xayruhuma fanzur li nafsika maza anta muxtaaru ne ko ah kër gëre àjjana lay doon bu fekkee daa nga jëf lu sun borom tabaaraka wa taala gërëm bu fekkee daa woo ko def nag geneen kër rek fa nekk muy sawara yàlla na ca la musal mu ne ko ñaari barab yooyu daal la fa nit mën a dem muy àjjana wala sawara yow nag yaay xool boo ciy tànn kon nag mbokk alxuraan yee nañu lu baree baree baree bare bare ci mbirum ëllëg xadis yi bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yu dul jeex ci lu ñuy fàttalikuloo dee ak ëllëg sëriñ tubaa sunu yaakaar moom ay jëfam ak waxam ak i meloom ak bindam foo ci dem sa xel ci ëllëg lay nekk danga xam ne fii fu dee fi e, sag fu dee fi fàggoo la dundub ëllëg waaye saxuwaay bi ak nekkuwaay bi ak kër ga mooy ëllëg kon lu àdduna niru niru euh, lu neex te neexut sax da koy niru lum niru niru lu rafet ay xoy-xoy la ay nax la bu mu ñu yàqal mukk dunduk ëllëg gi nga xam ne ni moo moo di dund ëllëg tamit mooy saxuwaay ba nañ ci bàyyi xel yàlla na suñu borom defal tawfiq ba waxtu wu nekk suñu xel di dem ci dee ñoo ngi fàttaliwaat mboolem mbokki jullit yi ak mbokki taalibe yi liggéeyub daaray Hikmatul mi te lépp jëm ci jàng ak jàngale ak yare ak dimbalante ci sunu biir ku ci bëgg a bokk wala ngeen ko defal tey ñu fas leen yéene andil ma bu amate solo te mooy wéyale li tàmbale woon démb ci fàttaliku ëllëg te indi woon ci wax yi Serigne tubaa sunu yaakaar jim ne fàttaliku dee moo gën di fanaanee la ndax fàttaliku dee dafa am solo lool ci ab jullit bu am xol buy dund digganteem ak boromam yàlla na ko seen borom defal ndax dana dolli ragal yàlla dana dolli tamit jaamu yàlla waaye dana dolli yaakaar yàlla dana dolli itam wattandiku àq yi dox sa digganteeg bindeef yi waaye dana dolli itam liggéeyal yàlla ci bindeef yi ngir am tiyaaba ak yiw woo xam ne ni bu ëllëgee danga ko mën a jariñoo Sëriñ Tuubaa sunu yaakaar nag eh, luy fàttali jullit bi ëllëg ak lu koy fàttali dee bari na lool ci ay mbindam bari lool ci ay jàngaleem am na bis mu woo mag ñi ba ñu bari ñëw mu bindal mu tombal leen ñetti tomb benn bi mu tomb ko ci kanam bi ci des mu tomb ko ci digg bi bi ci des mu tomb ko ca gannaaw daldi bind ca ron tomb ba ca kanam ak miim bind ci ron tomb bi ci digg bi ak nuun bind ci ron tomb ba ca gannaaw ak deel maanaam ak daal ah, ne leen xam ngeen sama tomb yi lu ma ci jubloo ñu ne ko buñ ko xamee de jël mbàkki mu ne day jommale de dal ni tomb bee ci kanam de mooy àdduna tomb bii ci digg bi mooy nit moo tomb bi da ci nuun nee na tomb bi ci digg bi nag day dàq ba ca kanam moom lay dàq waaye xam ngeen fu mu mujj ak mooma ñu ne ko ah mu ne mes da ko jàpp mu ko àdduna mbokk yi bu ko kenn doon jàpp kon ñi nga xam duñu ay jullit nga xam ci la ci dàq ko la ñu yendu di ci fanaan kon ñu jàpp ko te kenn ku ko mas a téye ak sa ñaari loxo ba jekk ko wala nga tër ko ni mu xaraleen di amut te du am mukk daal ne tomb bee ca gannaaw de mooy dee moo tax mu bind ci ak deel nee na moom bi ci digg bi lay dàq muy nit waaye xam ngeen fu ñu mujj ak mooma ñu ne ko ah mu ne nuus nuus rek da koy jàpp loolu la alquran naan qul innal mawta allazi tafirruuna minhu fa innahu mulaaqikum yow yonent bi kat nee leen dee mi ñuy daw dañuy faf taseek moom kenn mënu koo daw wa ma anhu mafar ñu andi it tey ay kàddu yoo xam ne ni lenn ci kàngami sëriñ bi muy ñi daan woy sëriñ bay Jaxate daana ko wax te bari na ci ay mbindam lool luy fàttali jullit bi ëllëg ak lu koy fàttali dee ak waxi sëriñ Moussa Ka bu ci xajut bu ëllëgee incha allahu ñu andi ko ndax seeni wax yu ama am njariñ la te it yu neex a dégg la sëriñ Mbay Jaxate am na fu muy waxee ne fàttee ko bon fàtte dee rek ay waral nit a bew budul kon ak fàtte dee kon kenn du reew a ko bew bu dul ko nag fàtte dee kenn dootu am lu ko saf kenn dootu am lu ko soofit dee waral ku ne sew am na fu ñuy waxe it ne kuy dund war nay xalaat at yi di ñëw ak a dem te xam ne am na ca at moom moos ca ngay faatu at mun a def fukki weer ak yaar di dee ka teru dang na ca taafeera weer fekk ca ngay faatu te weer wi def ay bis yooyu faw bis dana ñëw boo xam ne mooy sa sarax mbaa boog ca ngay faatu bis bu ne ñaar fukki waxtoog yent rombale wéy te am ca wow faw sa guru rot ca cay faatu te bis bu ñëw wala weer mbaa waxtu wala semaine kem loola jóg na ca saw fan ba ba ngay faatu ku denc ci téeméer te bis boo jàll teggi dërëm jeex nga dalay bett farlul ci ibaadaatu yaram wi ngay yafal ak xont ak diraaya ka diw suuf rekk koy mujje ak sax yi gannaaw faatu am na it fu mu waxee ne moom sëñ ba jaxate bul geesu kenn wéyal bul faale kenn jëfal ku dee ñu fob suuli fee del siy wax ak ña fa des wóllëre mat la fas ak koo xam ne kii gorewul àdduna mi gorewul ku nekk lay xalambas dunyaa soxal na ku nekkub sox bu rëy di ko nekk fu sox ba tàkkee ba jee ba ñeerët mooy soxal ña fa des kon àdduna loolu képp la kon nag kenn ku nekk boo dëkkut ci fàttaliku dee it ndax loolu xëy na métti na suñ borom yërmandeem moo tax léeg-léeg mu ñu koy fàtteloo waaye léeg nga dellu nag ci sa bopp waxtaan ak sa ngeeganaay xam ne kat bis dana ñëw nga tëdd foo xam ne nii bu la weñ dalee doo ko mën a dàqal sa bopp dangay mar lool te doo mën a naan xiif lool te doo mën a lekk ëpp ñëpp soxla te doo mën a wax kenn sa soxla doo mën a yëngal sa benn cër sukuraat métti lool dee it métti lool bu ñewee ci waxi sëriñ Musaa Ka dana ca feeñ bu digg ba jeexee ba ba ruugay wuj yàlla keroog mooy gën a metti juróom-ñaar fukki ràbb yu sar ak yeneen kon léeg di ko fàttaliku kat am na solo te dee day wextan wu wex a wex wu métti woo ne ne ñëpp a koy mos ah sëriñ saalihu radiyallahu anhu daana wax na nag suñu borom ku ko fàtte yërmande ma tax waaye ku mu fàttali boppam doo tal lu dul moom kon nag léeg-léeg nañuy fàttaliku suñu borom bala ñoo fàttali boppam